mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen nuyu di wax ne tey jii ci jamono yi di wax ak yéen coow li bari na ci réew mi bari na ci réew mi ndax li ñu jëm muy élection présidentielle yi dafa am solo ci réew mi dafa am solo ci dundu réew mi loolu moo tax élection présidentielle kenn mënu ko caaxaan ci loolu nag ma bëggoon wax ne ñu dee rafetlu nañu décision bi nga xam ne nii moom la conseil constitutionnel jël mooy décision bi nga xam ne nii dafa delloowaat Sénégal ci état de droit dafa delloowaat Sénégal ci état démocratique dafa delloowaat Sénégal ci état buy respecté constitution bi loolu moo tax décision bi conseil constitutionnel jël ñu rafetlu ko damay fàttali ne man may premier candidat. bi déposer recours au conseil constitutionnel pour contester la décision du président de la République abrogeant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 man maa jëkk daw dem conseil constitutionnel contesté loolu kon nag tey jii ba ma conseil constitutionnel joxee dëgg jox ko candidat yëpp jox ko Sénégal mënuñu rafet rafetlu ko ba ca des ñu jàpp ne élection présidentielle bii dafa am solo ci dundu réew mi ñu jàpp ne aussi ne président de la République bu ñu war a fal dafa war a nekk koo xam ne nii kenn waru ko teg dara maanaam un président irréprochable parce que nag Sénégal foofu lañ toll te Sénégal loolu la mérite loolu moo tax bu ñu jàngatee conditions yi nga xam ne ni moo tax ñu war a tànn président dafa am ñeent ak ñaar yu ci bokk yoo xam ne yu am solo la ndoonte yëpp a am solo waaye ma jàpp ne fan yi di ñëw fan yi passé ñëpp dégg nañu ñu bëri naan Malick gàkku dafa am nationalité polonaise waaye ba wax mbokk yi ne loolu bu amoon dinaa jomba taxaw ci kanamu sénégalais yi naan leen dama bëgg a giite réew mi ndaxte xam naa ne pour giite réew mi da nga war a am benn nationalité mooy nationalité sénégalaise man nag mosuma am benn nationalité bu dul nationalité sénégalaise aw ko démb aw ma ko tey te soxlawu ma ko parce que sama nationalité sénégalaise doy na ma pour ma jëriñ sama réew te loolu moo tax may def politique kon nag may mbokk yi ne man aw ma beneen nationalité aw ma ko Pologne aw ma ko beneen dëkk waaye nag comme dafa am ñuy wër di laaj ndax man polone laa ba dem ba Pologne di ko laaj autorité polonaise yi loolu moo tax man it ma am sañ-sañu ne dinaa laaj ñi nga xam ne nii ñoom laa seqeen mbir mi ku ci nekk wax li ma wax wala nga def li ma wax def wala nga jëf li ma jëf maanaam candida bu nekk war na wax ne outre le fait que da nga def déclaration sur l'honneur war nga wax ne nekkuloo beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise waaye ba ca des war ñu yem foofu xam ngeen ne charte réew mi ci charte code électoral daf nañ ne bépp candidat da nga war a waat ne yow yaa ngi fay impôt waaye nag boo bëggee yore réew te fayoo impôt waroo yore réew parce que ku mën a ku bëggee yore réew da nga war a fay impôt te loolu lu am solo la lu kenn mënul fooye loolu loolu moo tax may man Malick gàkku ma ne man dey nekk naa en règle avec impôt suñu dëkk que impôt dafa am solo parce que impôt nag mooy réew mi loolu moo tax ma wax leen ne man Malick Gakou man nekk na en conformité avec impôt dëkk bi ndaxte kat jomb na di dem ci élection présidentielle ne dama waat ne am naa quitus fiscal te aw ko te sama quitus fiscal wan naa leen ko léegi mu ngi nii ñëpp xam nañ ne kon man bu dee conditionnalité yi nga xam ne nii mooy tax ñu naan candidat baax na candidat set na candidat doxal na yoon man doxal naa yoon ba mu jeex takk loolu moo tax may wax ne aussi premier ministre Amadou bi nga xam ne nii moo giite gouvernement bi maa ngi koy lancé un défi tey ji ci ngoon na wone ne moom Amadou candidat légitime la maanaam Amadou Ba na wane ci fiscal am wane ne moom kat la mu waat xaatim ko jox ko conseil constitutionnel naxul conseil constitutionnel naxul Sénégal naxul réew mi li ma koy waxee nag ci Amadou Ba laa koy waxee ci candidat yëpp parce que nag élection bi di ñëw dafa am solo ci dund réew mi te waruñu ko fooye loolu moo tax may lancer un appel at tous les candidats ku nekk ci ñoom pour éviter coow bi nga xam ne moo am ba ñuy dem Pologne di vérifier ndax man polonais la wala ñuy dem feneen di vérifier ndax keneen beneen nationalité nga ku nekk da nga génne say këyit mu leer ci bopp sénégalais yi ba élection yi di ñëw ñu tànn président ci anam bu gën rafete te président bi dafa war nekk ku set wecc ku bëgg Sénégal ku war a mën a liggéey Sénégal ci loolu moo tax lii conseil constitutionnel wax Sénégal yëpp d'accord ci ñun candidats yi ñuy d'accord ci président Macky Sall ne d'accord na ci ñu ngi jël acte ci li nga xam ne ni d'accord na ci nee na moom dina def li conseil constitutionnel wax ci loolu nag moo tax ñun ñu proposé coalition Gakou 2024 ne élection bi dañ ko war a tenir le dimanche 3 mars 2024 premier tour deuxième tour bi egg le dimanche 31 mars parce que incontestablement s'il y a un deuxième tour foofu rek la ko mën a def pour que au plus tard avant la la fin du mandat du président dañoo am président bu bees ñu mën ko defal passation ci anam gu mu gën rafete conformément à notre charte fondamentale ak conformément ak xam ne moom la réew mi wax ñun nag lii mooy suñu point de vue sur toutes ces questions mais ñaan Sénégal yàlla saxal fi jàmm jàmm joo xam ne nii dina jur suba élection yoo xam ne nii élection yu démocratique la Sénégalais yi tànn seen président anam bu ko bëggee ñëpp gis nañ ne fan yi passé gouvernement bi libéré na des centaines et des centaines de prisonniers politiques prisonniers ñooyu ñu libéré dañu mën lu dul rafetlu ko ba pare wax ne sax ku ñu waruloon jàpp bu ñu la libéré dañ la war jox ndàmpaay ñu ngi saluer seen courage ñu ngi saluer seen détermination ñu ngi feddale suñu kóllëre ak ñoom ndaxte ñoom kaso boobu li leen fa dugal mooy taxawal Sénégal mooy jëmmal Sénégal ñu ngi encouragé gouvernement bi mu continuer ci yoon boobu libérer ñi ci des libérer aussi le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye fay parce que ñoom it seen place nekkul ci prison bi seen place mi ngi nekk dem seen kër duggaat ci politique bi pour que Sénégal am élection yu démocratique transparente et inclusive li laa leen bëggoon wax maa ngi leen di gërëm di leen sant